sunu jafe-jafe yi ci wàllu xaalis jeex na jàngal la tribune tey la ndaje euh, groupe consultatif ca Paris président Macky Sall di ci jàkkaarloog bayer yi euh, boot ci groupe boobu la Assane Sall sunu nattangoo bi ne daanaka lu sunum réew euh, am ci wàllu kilifa ñoom ñëpp ñanga ca ñanga ca Paris di supporter seen candidat ngir mu mën a fàggul Sénégal lu toll ci junni juróom-ñett juróom fukk ñetti milliards le populaire ne xel yëpp ak xalaat yi ñanga ca Paris altine doon altine tey ji doon altine ju diis ci Macky Sall Amadou Ba ministre de l'économie et des finances wax ni moom li mu gis doon lu del xelam ndax takku gi askan wi takku waaye itam lu Sénégal am ci kilifa lépp ngir njariñu réew mi loolee mën na tax ñu jàpp ne fa ñu jëmee Sénégal fuy neex askan wi la doon Paris tey mën nañu ko jàppee Ndakaaru nde gouvernement bi député yi syndicalistes yi privé yi ba ci presse bi teew nañu fa Mamadou Mokhtar Cissé ministre di budget ne wax ji nañu ko wax li ci am solo moo di sunum réew la a jibbil loole nag tax na ba a loxoom ba alal ju bare ñu jàpp ne dinañu ko jëlee fii ci Paris lépp rek ngir mën a wéyal projet yi euh, ba Sénégal ji bi las coow li coow li saa gaañi ay milliards la ñu bëgg enjeu yi toll ci ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti milliards euh, te secteur privé bi du ci des ginnaaw ñaar fukki projet ak benn yi ñu war yeggee privé bi euh, muy ci ñaareelu bëccëgu groupe consultatif yi maanaam ëllëg ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février lépp nag aju ci objectif bu plan Sénégal émergent libération daggee ca lang ne ndax ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer benn fukk ak ñeenti milliards Macky Sall mën na wax lu tax mu am alal joojule ministre Amadou Ba ne ressources publiques yi doyul ngir ñu mën a liggéey Sénégal loole nag waral enquête ne sunu ëllëg mi ngi ci sunuy loxo rawatina ci juróomi at yi ñu dëgmal mu doon responsabilité bu diis bu dee ñu ngi xaar li war a tukkee ci Paris la tukkee Chine moom neex naa dégg lool ba homme d'affaires yeeg syndicaliste yi fësal nañu seen mbégte ne coopération sino-sénégalaise nar naa gunge sunu réew ci wàllu développement ba mboolem projet majeur yi chinois yi daañu ci dugal seen loxo. ci la tribune Malick Noël Seck mel ni ku àndul ci projet Sénégal émergent nawel ne ay bor rek lay jural Sénégal ndax Macky mi ngi wax waxi alal waaye moo raw maître Abdoulaye Wade fuuf ndax day clignoter gauche ba noppi def marche arrière. Malick yamu ca ndax nee na sunum réew eh, dina fay weer wu ne lu toll ci juróom fukk ak eh, juróom-ñaari milliards ci bor bi fi nguurug maître Abdoulaye Wade bàyyi eh, kon ana lan mooy ndoy bor bi ñu xam ne diis na lool ci réewum Sénégal ba noppi ñu di ko yokku Sud Quotidien sori waxu alal ji jublu ci coow li tukkee ci yeesal gi ñu namm ci kuréel yi banqaasoo ci nguur gi professeur Abdoulaye Dieye ne rapport bi tukkee ci liggéey bi Amadou Mokhtar Mbow ak i ay gaayam def bu dee jëfee nañu ko day jëmmal démocratie bu Sénégal mën koo jëmale ca kanam mën ko ko itam dëgëral te ñiy dingat document bi moom biir na ko ni ñoom xam ñu sax lu nekk ci biir ay mariirandoo dong lañu Pape Diop ne ci laas nañu dox nañu doxale ak Amadou Mokhtar mbaw du ay teggin tey war ma amu ci ndax Amadou Mokhtar Mbow mag la mu war nañu ko wekk du lamit Loum ne coow li mi ngi jëpp waaye ñi nga xamante ni dañuy wax duñu leen tere nelaw ndax ñoom ab liggéey la ñu leen dénk ñu daal di koy def te liggéey boobee ki leen ko dénk moo di président de la république ñu ci pare jébbal nañu ko liggéey bi kon moom mi santaane liggéey bi mooy xool naka lay def ak proposition yooyu nga xamante ni moom la ñu ko jox ak itam na mu cay doxalee. booy Niang doxal ni ki démb nde am na ndam ci kaw ma Mandione jàngal la turbine doomu dégol bi rokkas na ma Mandione ci kàmb gi njoon nag gannaaw jëli bi moom wax na ni. am na ak njuumte goo xamante ni def na ko ci komba bi ndax ni mu bëree daal euh, dafa am njuumte gu ci am dégol ne moom kontaan na ci victoire gi doomam am léegi kay li ñe seen kanam mooy seen revanche ak jos wala boog ñu jox leen la déguerre numéro 2.